Non, je. Qui euh, Moustapha euh, euh, ok ci jamono yi Abdou ok bi ñuy dindi poste premier ministre ci gouvernement Abdou Diouf dafa assuré woon intérim bi. Habib Thiam dem mu occupé ko tuuti ñu dindi post bi d' accord non sinon que ben, c'est vrai que quand même yàgg na ci gouvernement hein. depuis 2012 euh, Sidiki Kaba il est il est avec euh, Macky Sall. maintenant le poste ben, de ben, est-ce que c'est après 2012 hein c'est après la la la la visite de Obama que Sidiki Kaba a rejoint l'attelage gouvernemental. ah ouais? non ouais. je crois que bokkul ci première équipe bi il est devenu son premier poste c'est ministre de la justice. c'était après la visite de Obama. parce que oui, ministre de la justice bu njëkk c'était Aminata Touré voilà voilà exactement donc il est resté longtemps mhm, euh, mhm. il a occupé donc comme tu as dit des, des fonctions importantes maintenant contexte euh, bi ñu changé premier ministre Amadou Ba c'est un contexte euh, à la limite électorale mhm. donc xamoon na ne que si marche pas il n'allait pas <coughs> il mais aussi li ma mën a wax daal dafa am expérience en euh, expérience à l'échelle internationale. Mm -hmm. euh, que vraiment euh, mu diriger une organisation des droits humains à l'échelle euh, euh, mondiale et puis nekk aussi un avocat nekk un acteur de la société civile. il a un profil qui montre que Sénégal amul benn complexe par rapport à aux autres pays. Mhm. que que moom c'est c'est vraiment quelqu'un qui qui qui. qui a un bon parcours qui a pris j'étais même surpris que mu nangu dem liggéey en ci gouvernement parce que c'est un acteur de la société civile il est il a toujours été indépendant il a toujours été euh, euh, pour des batailles euh, pour des batailles pour la liberté pour la République c'est vraiment un citoyen j'étais même surpris que euh, ba mu duggee ci gouvernement bi mais ça aussi ça montre que bon Sonko wax na ko c'est-à-dire que ben, la République, c'est la République, c'est les institutions. Elle reste. Et, que, et Mom, il a incarné toute sa vie cette bataille citoyenne pour le respect du droit, l'État, les institutions. C'est, c'est, euh, il, est, il a ce profil-là. Uh -huh. bon, maintenant, euh, Ousmane Sonko aussi a rendu la monnaie. Uh -huh. Ça uh-huh. aussi. Euh, Euh, c'est important que pour Ousmane Sonko, la passation elle est faite. Maintenant, toute sa responsabilité est engagée. Mm -hmm. y a, là, il n'y a plus de, de temps à attendre. Mm -hmm. C'est lui le chef du gouvernement. Mm -hmm. Il doit surveiller à la lettre la mise en place de tous les ministères. Mhm. C'est le premier acte de, de, de sa, sa fonction-là. C'est comment accélérer le processus mise en place de son équipe. Mhm. Donc là, il faut qu'il soit très attentif euh, au niveau administratif Bah, l'autre côté, c'est également que, bon, il faut qu'il travaille, euh, il y a l'organisation du ministère, mais il y a l'animation. C'est comment accompagner chaque ministre pour que d'ici peut-être mu am benn timing pour dire que dans deux semaines je mets en place mon organigramme. Uh -huh. Dans deux semaines je, comment je vais travailler. Donc il faut qu'il se mette euh, à l'œuvre pour, pour euh, installer son équipe, uh -huh. mais en même temps, mais préparer maintenant les politiques à venir. mais euh, pour euh, conseil des ministre bi ñëw bu dee après demain la dañuy xaar ba def passation de service yëpp wala war nañ mën a ministre yi war nañ mën a dem autour de la table l' essentiel il va passer il va installer tout le monde aujourd'hui en principe bah le président il va pas attendre les retardataires c'est c'est là aussi la la discipline la rigueur mmh. cest que ñoom ñëpp xamoon nañu que moom dina def passation je que il a fait même peut-être exprès de l'annoncer depuis le week-end mmh. que man dinaa def passation dimanche mmh. préparer leen. Mhm. normalement tous les ministres de, de l'ancien régime mhm. sont en place mhm. parce que ñoom ñooy def transition je crois que même l'inspection d'État va se mobiliser pour qu'il n'y ait pas de ratage et je crois maintenant nag Ousmane Sonko c'est lui qui l'organise et que cette fonction là elle est quand même euh, importante mais il y a aussi les attentes que moom moo war a préparer dès l'installa dès le premier conseil des ministres justement le, ben, ça va parler de quoi mmh. Ce premier conseil des ministres. Effectivement. C'est lui qui doit préparer. Et je crois que c'est bien parti, en tout cas, pour le moment. Euh, bon. Euh, Cet après-midi aussi, il y a une autre passation. Le, le ministre de l'Intérieur sortant et. Ah oui, ils vont tous mais non attends il y a pas de il a à arrêter. Mouhamadou Makhtar Cissé une que le premier ministre comme tu dis là. au général général Jean-Baptiste Tine ouais. parce oui, que non, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que Sénégal amuñu complexe euh, gestion de l'État tous on sait comment ça marche et am nañu quand même euh, yar am nañu teggin am nañu respect des institutions. Euh, ça va va rouler. Euh, je crois que les ministres, ils savent qu'ils doivent s'installer avant normalement le premier conseil des ministres. C'est impensable uh mhm. -huh. que... Non, je, je pas y si le Par exemple. Le président peut le faire les mardis ou même les mercredis parce que faut se rappeler que du temps de Abdoulaye Wade comme du temps de Abdou Diouf c'était c'était y avait des jours que non jours sax bokkuloon du temps même de Macky mmh. donc le président peut décider exceptionnellement pour une première réunion du conseil des ministres de le décaler peut-être à jeudi ou vendredi le temps de permettre que tous les ministres entrent en, pleinement en fonction ok pour pouvoir décider euh, que, donc que tel par rapport mmh. la semaine mais comme les ministres n'ont pas encore. mais est-ce que c'est c'est une obligation de faire la passation ensuite d'aller siéger au conseil des. bon mais xam nga xam nga xam nga bon ils sont nommés présentement ils sont ils ont été nommés par le président de la République par décret ils sont ministres xam nga il faut pas oublier c'est pourquoi on dit président élu comme président en exercice donc c'est un peu la même chose parce que les, ils n'ont pas encore pris fonction dans le ministère en tant que ils n'ont pas encore fait la passation, ils n'ont pas encore les dossiers. Parce qu'aller en conseil des ministres, croiser les bras pour vous regarder le président faire un discours, je dis, c'est pas ça. Euh, il ils ne pas le faire. C'est l'instruction d'État qui organise la, passation. Donc il y a un acte administratif. Le Sidiki donne à Ousmane Sonko l'État de, de, la primature. C'est administratif. Mm -hmm. C'est mhm. surveillance d'une autorité. Hein. Mhm. une transmission de l'ordre qu'il eu transmission. Mhm. effectivement mais conseil des ministres bi aussi mën na nekk de manière restreinte. non parce que c'est pas une obligation ñëpp teew. non non non non ça c'est des combines là. non non non pas combine. le gouvernement conseil des ministres xam nga des fois am ministre yu voyagé. te du tee day am c'est pas des combines dama ni mën nañ ko def. en l'absence de certains. Mais c'est la première réunion. Attends, c'est la, première réunion. C'est pas possible. Bii euh, vraiment ici on parle de la première réunion voilà. conseil des ministres. Donc ñëpp dañu war a teew. ñëpp ci yoon. bu mel ni rentrée des classes. Okay. Tout le monde doit présent. Bah, c'est c'est la rentrée maintenant, des le président n'est pas tenu ci li ma xam man ak pratique bi ma gis mm. n'est pas tenu de le faire le même jour que le président le Il peut dire que désormais je tiens mes réunions le mardi ou le jeudi. mais la comme une mmh. première réunion bii il peut décaler. le temps de permettre que ministre ah, n'oublie pas que aussi nous avons la Corité. Mmh. nous avons la Corité il y a tout ça qui entre en jeu. il peut même faire le vendredi sa première réunion du conseil des ministres. d'accord le, temps de permettre que ministre yi. dem def seen passation. d'accord te dossiers yi ñëw et commencer liggéey bi. d'accord donc euh, on n'est pas tenu par euh, pour man à mon à mon sens on n'est pas tenu par euh, euh, tey on faisait les réunions du conseil des ministres quoi les. les les les pas tenu que mercredi bi parce que mercredi bi. mooy korité. Mhm. Mhm. mooy korité donc il peut décaler pour que def ko jeudi. même ba vendredi pour permettre gars def seen passation. d'accord donc loolu amul c'est pas. collège sur. Euh, c'est pas figé quoi c'est pas. c'est pas dogmatique. parce que sinon on se tire euh, une balle euh, dans le pied. yow nag ñeme ay wax yu rëy de ay balle dans le pied teel waaw ah, teel na kay moo tax ma ne loolu kay. xaaral ma laaj sama copain Babacar Diop Diop noo gisee déjà sur suñu thème bi mooy décryptage de de la nouvelle équipe gouvernementale nommé nañu vendredi je pense bien la liste bi génn. bon ban analyse nga ciy def. Euh, merci Bourama donc je vais commencer d'abord par féliciter le président Bassirou Diomaye Faye qui a été bien élu très bien élu et qui suscite beaucoup d'espoir à l'endroit de la population sénégalaise di wax ne euh, li si li ëpp si askan wi di xaaram d'abord mooy espoir. ñu jàpp li nga xamante ne moom la ñuy njëkk euh, d' abord euh, seetlu mooy d' abord la parité gis nañu ne jigéen ñi néew nañ ci loolu et je pense que ça a suscité beaucoup de débats euh, je pense que fi Sénégal toll waroon nañ gën a tenir en compte en tout cas la représentativité des femmes. Mm-hmm. amaat nañu beneen information. la parité ne s'applique qu'aux qu'aux qu'on ñu ko waxti. Euh, non c'est euh, non on ne on ne on parle pas de la parité absolue mais il devait y avoir au minimum ñu équilibré comprenez on ne peut pas concevoir aujourd'hui un gouvernement de trente vingt cinq ministres cinq euh, secrétaires d'État de trente on nous parle de trois femmes ce n'est pas équilibré quatre femmes ce n'est pas équilibré. on ne parle pas de, de, de, de, la parité absolue, mais au moins un gouvernement devait être au moins équilibré avec les femmes. Nous avons des femmes intellectuelles, des femmes très engagées dans, dans, la coalition Bassi Djama est président. Moi, je pense que ça, c'est un quoi. Euh, la deuxième chose, moi, est que Temnaïsa Bedegue, bon, aussi, c'est des informations, en tout cas, Euh, vraiment des preuves palpables mais si biir gouvernement bi am na si sax benn couple bu si nekk mooy jëkkër jabar ñu jàpp ne euh, loolu su dee am na aussi tamit ñu jàpp naa ne du li gën du li gën euh, leneen li nga xamante ne aussi gis naa ko ci mooy que pratiquement les soi-disant hommes du du système que nous donc ont été totalement presque écartés donc ay on a vu du sang neuf des technocrates qu'on ne connaît pas en tout cas ci langue politique bi ñu bëgg wax ne loolu bonul mais politique bi nga xam moom mooy wàcc sur le terrain comme l'a si bien dit docteur Cheikh waxtaan ak askan wi imposer li nga xamante ne mooy projet bi ñoo ñu baax na ñu bàyyi leen xel ñu doxal ndax dañuy boole ñaar mooy l'aspect intellectuel c'est pas parce que tu es politique tu le background intellectuel pour doxal li am solo dëggantaan c'est l'orientation ki nga xamante ne moom mooy le premier ministre war a doxal maintenant vraiment les projets politiques du président ou de la coalition en général mais suñu jëlee li ñu gis mooy que technocrates yi am nañ ci dooleel lool et jàpp naa ne aussi tamit loolu si jàpp naa ne di li gën si li nga xamante ne fa la jëm mais suñu waxee suñu waxee ni déjà tous les ministres doivent se euh, départir de leur poste électif loolu déjà li nga wax lay wunduwaat parce que boo nekkee ministre tamit ñu defoon le maire wala député da ngay summi ndomba boobu dénkaane ko kon li ñu la sant mooy liggéey ci gouvernement bi ak politique bu gouvernement bi ba tey rek waaw mais kële même euh, non kële daf koy ëpp proximité si askan wi du benn xam nga tey ñooñu nga xam dañoo war a bàyyi seen poste électif yi mën nga leen compter à doigt man mën naa citer je pense que su ma juumul ay Birame Souleye boobu tu peux les à doigt par par euh, hmm. euh, vraiment à à ils ne sont pas nombreux dañoo néew tey boo jëlee askanu Sénégal dans l'écrasante majorité de la population mënuñu la limal cinq à huit ministres yoo xamante ne xam nañ leen ci biir trente yi ci gouvernement bi donc c'est des c'est des nouveaux ce n'est pas mal mais baax na aussi ñuy bàyyi xel les hommes politiques qui les compétences pour faire la job ndax man tey jii ni bu ma gisee ko xam c'est un technocrate tout ma gis quelqu'un aussi il les même niveau d'intellectuel et même mêmes expériences moi je préfère prendre l'homme politique qui est le terrain qui peut cumuler les deux parce que kooku moom laa yaakaar ne moo gën a comprendre li nga xam te ne moom la askan wi di laaj. gis naa ne si nguur gi. ba fa dëgg yàlla teniruñ si compte trop. toujours dafay fekk ji lii euh, Ousmane Sonko PM waxoon euh, à la veille des élections présidentielles comme ni mu ko waxee woon à ses camarades de la coalition Diomaye Président mooy que fii pàccoo du fi am c'est pas parce que aujourd'hui tu membre de la coalition ngay xaar maintenant ay postes ministériels ou autres donc jàpp nañ ne aussi jël nañu li nga xamante ne moom mooy compétence ñu jiital ko mais je répète une fois de plus compétence égale je préfère prendre l'homme ndax loolu laa jàpp ne mooy li gën. d'accord nga nekk un homme politique doublé aussi de compétence parce que homme politique <laughs> loolu jotewul dara ak sa formation on a la preuve la avec le docteur Chadien donc euh, li mu wax ni si j'avais à choisir entre un homme politique comme avec un une tête bien fait mais les hommes politiques aussi dañu am des têtes bien bien bien faites mais tout li ma bëgg nga leeral on parle de trente ministres vous avez trente ministres ou vingt vingt cinq. en fait il y a vingt cinq ministres pleins. mais les d'État et et cinq cinq secrétaires d'État. ce des ministres. Bon, ce sont des secrétaires d'État. bon ils ont le de ministre ils on a vingt cinq ministres. et trente pour pour faire court. il faut nekk dans de sémantique secrétaire d'État ministre ainsi de suite. par non non waaw waaw waaw déet déet déet jarul jarul jarul xëccoo kay non non non xool ku ma neex ma jox la kàddu jarul xëccoo bu ñu wax ci sémantique li ngay wax ci sémantique la xam nga dafa mel ni nga ni nga ni dafa mel ni nga ni gouverneur nga ni nga ni gouverneur préfet nga ni non ñoom ñëpp jarul gouverneur c'est question de sémantique la docteur Cheikh Dieng docteur Cheikh Dieng oui oui apparemment Mamadou moom dafa yàkkamte. Eh, Mamadou bàyyi ñu ngi dagg waay dafa yàkkamte opposé la. Mm-hmm. ah déet costume costume bi moom di nga ko sol camisole de force la. <laughs> après nga wax ma nan dugg na wala yaa ngi koy force ba léegi. donc souvent du souvent dañu mm-hmm. euh, dafa yaa fa amoon ay politiciens professionnels. yoo xam ni seen métier du am lu dul nekk lu dul politique donc euh, voilà ci wàllu xam-xam ci wàllu liggéey beneen liggéey bariwuñ ko mais léegi booy seet de plus en plus quand même dans les partis politiques ce sont des grands techniciens dans tous les domaines ñoo fa nekk domaine boo laaj rek y a des y a des hommes politiques yoo xam ne am nañ ci expérience am nañ am nañ compétence ci seen domaine technique ba pare di politique comme tu dis man tey en matière d' environnement. gisuma euh, en toute modestie. Mhm. en toute modestie wax fa dëgg yàlla Sénégal ba mu jeex bariwul ñu ma ci ñu ma ci ëpp xam-xam. Mhm. ñu ma ci ëpp expérience ñu ma ci expertise. ci domaine bi nga xam ni vraiment liggéey naa ci jàng naa ci ba am ci doctorat. e donc di ci di ci di ci di ci liggéey au plan international ak au plan national. donc euh, mais je pense que dans un état il faut aussi dire que l'état n'appartient pas seulement au parti politiques c'est peut-être peut-être cette boobu notion la Ousmane Sonko gën a bëgg a euh, mettre en exergue que ni pas c'est pas parce que defuma politique nekkuma ci benn parti politique awma droit participer à la gestion de l'état parce que le gouvernement a la responsabilité mu tendre loxoom ku nekk kuy sénégalais moo xam yaa ngi Sénégal biir biir réew mi moo xam yaa ngi bitim réew mi l'essentiel est que sa expertise sa sa sa domaine sa xam-xam nga pare pour ñëw gunge ci parti politique parce que nag un homme politique la ñuy la ñuy la la ñuy fal tey ñi ñi ci gouvernement bi ñi ci politique bi ñëpp Bassirou Diomaye Faye la ñuy gunge parce que benn nit boobu. la ñu fal mhm. ci ci sur la base de son programme sur la base de li mu diggaale ak askan wi kon su fekkee dinañ ko fa euh, politique yi dinañ ko accompagner mais les autres citoyens donc dinañ ko mën a accompagner également et par ailleurs ce n'est pas seulement dans le gouvernement qu'on accompagne aussi le président de la République le citoyen buy xëy di bale buntu këram bis bu nekk. mi ngi mi ngi jàppale président de la république donc cette notion citoyenne elle est aussi très très importante que nit ñi xam ni du ci gouvernement rek la ñuy jàppale président de la république la ñuy jàppale action gouvernementale mais donc euh, et ça peut-être on y reviendra je pense que bokk na ci urgence su gouvernement bi urgence su Bassirou Diomaye Faye mu développer cet esprit de participation citoyenne volontaire au développement du pays loolu am na solo donc euh, maintenant euh, et c'est dans le même esprit qu'il faut comprendre que parité bi ñuy wax d'abord terme bi je pense qu'il faut bien le revoir parce que bu ñu naan parité donc ça s'applique à un cadre légal buy concerner les assemblées Euh, électif muy assemblée nationale muy muy collectivité territoriale yi euh, ça ça s'applique pas à un gouvernement mais au-delà de cela il faut comprendre que Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye dañoo nekkul dans une dynamique de de quota xam nga bu ñuy wax parité affaire quota la ñuy wax. jigéen ñi dañuy am temps góor ñi am temps wala ñu naan région yi dañuy am temps. Euh, ethnie yi am temps tarixa yi am temps lo loolu mooy dynamique yi ñuy tàmmoon a gis ñu ciy defaree gouvernement Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ils ont ils ont estimé que sur chaque poste nañ dem xool ñi nga xam ni jàpp nañ ñoom am nañ confiance yi ñoom suffisamment te mën nañ liggéey bi en tout cas am nañ une présomption de euh, de compétence une projection d'efficacité dans li nga xam ni moom lañ leen di dénk donc ce sont ces deux critère mais aussi nag la ngay boole chaque fois mooy le critère de confiance personnelle donc de celui que nomme ak le critère maintenant de compétence supposée dans le poste bi nga xam ni moom la ñu nommé mais je pense que globalement sénégalais yëpp vraiment sénégalais yëpp qui sont de bone foi rafetlu nañu gouvernement bi. di xaar nag. waaw ah, ñëpp ñëpp rafetlu nañ ko ñëpp am nañ ci donc un a favorable. ñu bëri. man man ñi ma gis ñëpp ah wax fa dëgg yàlla ñu ma gis ñëpp gisuma gisaguma ku ci am a priori de favorable parce que nit ki bu dee liñ ko nommé xam nga ni xam na ko techniquement xam na ko professionnellement am na ci xarañte da jàpp ni ah. am naa njortul ni dina mën a réussir mission bi biñ ko biñ ko dénk en attendant nag maintenant donc euh, la la vérité parce que nag gestion de l'État euh, donc loolu aussi beneen beneen métier la bu bokk rek ak gestion technique si sa euh, domaine de compétence bi xam ne moom nga nekk doyen pour gérer aussi ay ministères il faut savoir manager parce que mën nga ci am xam-xam te fekk mënoo manager équipe nga dem ba ci réalité yi nit ñi gis ni mais kii ana xam-xam bi ak diplôme yu bëri mais leneen aussi maa ngi koy constaté li Babacar Diop wax sànq ci euh, les acteurs politiques am na ñenn ci gouvernement bi dañu déjà la diaspora est vraiment très représentée mais ñooñu mënuñu leen ni doo leen ay acteurs politiques parce que au niveau de la diaspora dañ daan politique nga leen di gis donc même bu ñu amee ay diplôme aussi bëgg ñibbi si seen réew mais au niveau de la diaspora ñoom ñoo étendre foofu base seen parti ba mu am résultat yi mu am au niveau de la diaspora donc bu ñu leen bu ñu leen xeeb quoi ci côté politique. Euh, je crois que quand même base bi mooy que euh, Pastef Sonko Diomaye les alliés dañu xeex pour am nguur ça c'est une bataille. oui c'est une bataille politique pour prendre le pouvoir. la deuxième bataille bi la ñu engagé nii ils sont ont le pouvoir comment ils vont gérer le pouvoir mhm. c'est c'est totalement différent mhm. totalement différent c'est-à-dire que booy wut nguur bah tu utilises toutes les expertises muy administratif bi muy politique bi muy religieux bi muy yow tu as une stratégie de prise du pouvoir parce que c'est un exemple parfait ils se sont battus pendant dix ans am seen coalition léegi am nañu nguur maintenant comment ils vont je pense que euh, la première chose comme euh, Cheikh l'a que au moins on part euh, du départ du gouvernement vingt cinq cinq c'est mieux que quarante ça tous les Sénégalais vont le dire au lieu de quarante on a au moins trente donc il y que ils ont respecté à peu près euh, le sentiment général ah. vas euh, donc ça non ça c'est une bonne base. Hum. maintenant il y des purs et durs qui vont te dire que mais on pouvait faire quinze. Hum. les purs et durs c'est-à-dire ceux qui travaillent sur l'organisation de l'État mais loolu bon c'est un débat entre théoriciens mais au moins sur le plan global les vingt cinq et les cinq c'est une bonne base léegi nag pour moi. euh, vraiment, j'ai pas vu de défaillance au niveau profil. J'ai pas vu de défaillance. J'écoute tout le monde. C'est-à-dire que soit am nañu expérience administration publique, ou soit am nañu administration expert administration privée, ou soit am nañu euh, euh, euh, expérience des Nations Unies ou des organisations africaines. Mm -hmm. Ou quatrième cas de figure, ils ont une expérience du mouvement social et culturel et religieux. Mhm. Donc ça, c'est les profils. du gouvernement gisuma en tout cas une faille entre euh, le niveau compétence et la fonction de ministre euh, de ministre et bon ça quand même c'est un élément <clears throat> important qu'il faut le souligner maintenant il y le débat comme euh, de, il l'a dit aussi gis nga la fonction la lu ñu lay laaj mooy le profil ak le vécu mais lu gën a difficile c'est de comprendre quelle politique publique dans le domaine qu'on t'a confié. Mm-hmm. Quelle est la politique publique dans le domaine qu'on t'a confié hein? et comment mettre ça en œuvre. Mm-hmm. gis nga lool donc ko jàng benn benn école benn université. Mm-hmm. foog nga nekk. Euh, non il faut que tu aies un potentiel. tu peux être parfait euh, économiste hein, mais pour comprendre la politique publique dans le secteur de l'éducation parce que tu n'as jamais étudié l'éducation mais pourtant tu es économiste. mais xam xamoo le système éducatif. xamoo le, le système le ministre de de l'économie et des finance du président Abdoulaye Wade un économiste émérite à la Banque mondiale qui était venu il n'a pas fait trois mois. wa voilà. de président Wade. oui Abda euh, Matar Diop. Matar de la Banque mondiale. parce que le le problème la politique publique. ak sa mise en œuvre beneen beneen dispositif le la laaj. et je crois que Ousmane Sonko il est conscient que y a ce problème là. oui c'est-à-dire que euh, <coughs> bon je prends l'exemple le ministre de l'intérieur on l'a pas choisi par hasard. le ministre des forces attends le ministre des le ministre des forces armées n'a pas été choisi par hasard le ministre de la justice. ils ont un vécu. dans leur domaine soo leen confier ils peuvent te dire voilà la, la politique publique voilà comment je vais mettre ça en œuvre mais par contre ki nga yóbbu par exemple au ministre des affaires étrangères et intégration il faudra que la dame réfléchisse pour proposer quelque chose je sais pas si tu si vois ce que je veux dire c'est-à-dire que am na kii am na vécu am na potentiel. moom réfléchir wala politique bi ñu ko jox la war a mettre en œuvre. du côté mais c'est ça le rôle de son c'est ça le de Sonko il a raison de dire que man je ne defuma seddoo c'est-à-dire réfléchissons sur les politiques publiques trouvons les personnes euh, ressources essayons de voir comment mettre ça en place donc c'est la première phase de, de, de il faut élaborer le projet global du, du gouvernement d'accord maintenant la mise en œuvre pour man honnêtement euh, c'est là qu'il faut se battre dans la mise en œuvre d'accord Mamadou. yaa ngi xëccoo parole boobu ba léegi. léegi yow noonu nga ça te va bien hein? non ma xëccoo ma la la costume. ma xëccoo c'est que dama gis yoo xam ne rek peut-être que. bu naa ci costume costume opposant. d'abord d'abord yaa ngi koy mené apparemment. ah si ma ma. boxé. ah non moom kay euh, de tout temps. mais mais mais Mamadou de euh, aussi ah. comme intérieur ñu yóbbu fa quelqu'un qui n'est pas politique. waaw ouais, mais justice ñu yóbbu fa quelqu'un qui n'est pas politique. c'est pas la première fois mais je reviens. non la première fois mais dama ni. est-ce que loolu aussi doonut lu nit ñi bëggoon. non moi moi moi ce qui me dérange dans ça. c'est moins c'est moins euh, euh, euh qui n'est pas politique et autre mais avant de revenir sur ça je voudrais d'abord euh, euh, dire li Babacar Diop wax je le partage d'abord c'est un gouvernement de 30 ministres et sur ce gouvernement de 30 à l'époque le premier gouvernement parce qu'on parle de premier gouvernement parce que da koy da ngay méngale lu euh, cinq sur quarante quarante c'est vers la fin après douze ans de magistère mais oui, le de, du président vingt cinq ministres dont six a eu des gouvernements quelques mois après donc au mois d'octobre le 29 non, octobre non, le premier et le deuxième sous sous le magistère euh, euh de le deuxième gouvernement qu'on a parce que y a eu un réaménagement le 29 octobre 2012 ci réaménagement boobu déjà y a y a on on c'est c'est c'est sept femmes mais c'est pour dire que d'abord nous avons 30 ministres il faut qu'on soit d'accord sur ça pourquoi je disais tout à l'heure c'est pas la peine de faire des sémantiques secrétaire d'État autres ce sont des ministres qui ont des responsabilités parce qu'ils vont à une partie des politiques publiques définies par le Premier ministre et le, surtout le chef de l'État qui euh, voilà qui qui qui définit le, la politique de la nation. donc loolu il faut ñu ñu leeral ko beneen bi mooy li ma doon posé lu ma bëggoon posé docteur docteur euh, Cheikh parce que sànq ba muy ubbee waxtaan bi dafa wax affaire le président Diomaye euh, rencontre la coalition rencontre boobu mu def ak coalition bi est-ce qu'il a fait en tant que président de la République di bi ou a fait tant que membre de PASTEF pour rencontrer kii bi parce que moom vous l'avez entendu dès le début dafa ñëw taxaw ne man j'ai démissionné j'ai démissionné. j'ai démissionné de son poste de secrétariat. c'était c'était c'était le candidat. oui qui rencontre ses alliés. waaw non c'est pourquoi je voulais des éclaircissements rek. mais non mais il n'est plus candidat mais il il est président de la République et toutes ses actions lu muy poser comme action depuis qu'il a été élu et surtout qu'il a qu'il a été des pouvoirs de président nekkatul affaire candidat moi je ne parle plus de candidat candidat amatul donc loolu aussi il faut que ñu ñu ñu leeral ko parce que ils ont parlé de transparence le président parce que ñoom dans leur projet dans leur projet et j'aime moins le mot de projet parce que il faut ñu xam ne léegi ils ont la charge de l'État quand Ousmane Sonko parle de projet dans dans dans ses discours et autres euh, euh, moi je suis moins à l'aise parce que maintenant on parle plus de projet on doit parler des politiques publiques effectivement on doit parler du programme. xam nga yaa ngi fi créé ay sémantique. waaw mais non non damay wax rek man. ay sémantique la non projet politique projet. loolu ay ay ay vocabulaire. li non xam nga ñoom ils ont toujours li nga am ci tableau de base. non mais c'est que ñoom ils ont toujours parlé de de projet xam nga c'est pourquoi je veux faire la différence. waaw léegi ñoom lay déranger yow lay déranger. mais ñoom projet ci lañ nekk. waaw mais non mais c'est que nag fu mu ne nii fu mu ne nii. Euh, ñu ñëpp dañu d'accord ni ñoom la fal. li am solo mooy le contenu. waaw mais d'accord programme ah, la politique la mais li ci biir. yaa xam noo ko mën di tudde non très bien cahier bi wala bloc note bi yaa xam noo ko tudde li ci am solo mooy. li ci biir moo tax il faut faire attention moom la choisir. d'accord mais mais mais maintenant on parle de président de la République on parle de premier ministre. Et on parle des ministres. D'accord. Quand on parle de projet alors que aujourd'hui on doit être derrière pour pousser parce que ñoom ñoo ci ñoom nañu fal dañu war a jàppale donc loolu aussi am na am na am na am na solo maintenant soo dégloo Ousmane Sonko ci euh, euh, discours bi bu def ni passation de service di gërëm di sant bu baax euh, maître ki Kaba li professeur Mamadou Sy Albert wax dëgg la c'est un c'est un haut cadre de l'administration c'est c'est c'est c'est quelqu'un qui a été membre de la société civile international qui a quand même qui est connu et reconnu mission bu ñu ko dénk moo doon organiser élection dénk ko Maktar Maktar Cissé ñu ngi ci sant yàlla tey ñëpp d'accord nañ ni. élection am na au cadre de l'administration. non non au cadre non non au cadre de l'administration non non non profession libérale avocat non non non je retire. je ah, au cadre non c'est un cadre c'est pourquoi de société civile internationale boo xam ne ni quand même gis nañ ko avocat. international donc moom vraiment ñu ngi koy euh, ñu ngi koy féliciter ci liggéey bu mu def. ça a très court mais il a fait un travail extraordinaire. d'accord maintenant euh, euh, quand on parle de euh, président de la République c'est vrai que moom moo am choix de de de choisir ses hommes. Hmm. avec son premier ministre. mais Sénégal bi ñu xam fii mais on a toujours eu à respecter des équilibres parce que lui il a il a il a il a décidé d'accord de mettre en avant un certain nombre de critères, mais quand même c'est important. Quand on prend une région comme Thiès, tu prends quatre ministres, ou voire plus. Quand tu prends d'autres régions, tu, tu, tu choisis euh, euh, ministres encore, tu laisses d'autres régions. Je veux dire que on a toujours quand même eu à respecter un un gouvernement c'est un équilibre d'abord. xale euh, euh, et loolu c'est am na solo maintenant daa ñëw ci yeneen bi. par exemple au général Tine et puis par rapport. Euh, Babacar un peu à au conseil supérieur de la magistrature parce que y a un débat sur ça boo xam ne il faut quand même ñu wax ko. Babacar Mamadou mu ngi wax ci waxu équilibre nee na ñun loolu la ñu xam looloo fi nekkoon déjà raison pour laquelle ñii bu ñu ñëwee ni dañuy def rupture. sukkandikuwuñu ci yéen na ngeen daan doxale parce que la ngeen daan doxale les résultats sont là palpables ñoom dañu bëgg a doxal leneen est-ce que mën nga on peut pas faire du neuf avec du vieux. nan lañ daan doxalee. non ñoom dañi loolu lañ fi fekkoon équilibre war euh, région bi am fii région bi am fee tous les présidents ñu ko ay région non tous les présidents ñu ñëwee doxalee neneen. tous les présidents te ni rupture la ñu bëgg. ñu ñëw doxalee neneen kon kay dafa war a leer. Euh, donc léegi kay résultat euh, bi moom la ñuy xaar ñun. donc man si balaa may dugg si kaw bi d'abord damay def benn précision si docteur Dia. Mhm. dafa ne. képp koo xamante ne tu de bonne foi. Mhm. di nga nangu li defee la mise en place du gouvernement. donc ceux qui ne sont pas d'accord ils ne sont pas de bonne foi su ma déggee waxam et je pense que loolu moom wax fa dëgg yàlla jekkul ndax on est en démocratie da ngay am sa gis-gis mais nga nangu gis-gisu ñeneen ñi. sans pour autant ñu mën a egg ci yenn propos yi. d'accord je n'ai jamais di que ni ñu teg poste yi ñu leen jox. méngoowul je ne l'ai jamais dit parce que su ma déggee yenn wax dafa mel ni dañ may démentir je précise une fois de plus moi personnellement bu ñu jëlee d'abord les trente membre du gouvernement pour faire simple moi je suis totalement en phase avec ce nombre parce que pour man am na amélioration je suis très clair je vais être très clair ndax nous avons vu que am na ay Euh, ay ay kuréel ay ay euh, nu mu ci comment je peux dire en tout cas am na ay ministères yu bari yoo xamante ne dañ ko doon vraiment segmenté tey jii ni cumuler nañ leen jàpp naa ne c'est pour économiser mais c'est pour booster et vraiment je pense que loolu amélioration la alors su ñu ñëwee wax ñu ne problème équilibre ñun ñëpp xam nañ ne parité xam nañ fan lañ koy xaar c'est des postes électifs moi je parle d'équilibre moo tax j'ai précisé encore préciser j'ai dit on xaaruñu aujourd'hui li tu li tubaab bi naan euh, parité absolue dañu ne ñu équilibré entre les hommes et les femmes mais tey ji ñëpp xam nañu ne li nga xamante ne moom la ñu gis mooy képp koo xamante ne jox nañ la sa post ba nga nekk mais boo xoolee sa CV da ngay xam te ne c'est des gens très compétents lañ fa teg. ce que foofu la ñu war a nekk nombre d'hommes nombre de femmes. non non parce que on pouvait. On non pouvait de femmes. te loolu dafa war doon. non non non il faut pas non non non non cest à il faut pas il faut aussi me suivre quoi waxuma ne pour ñu jël n'importe quelle femme teg ko pour dugal j'ai dit autant il y a des hommes compétents autant il y a des femmes compétentes foofu lay waxee. parfois elles peuvent elles peuvent être même beaucoup plus, plus compétentes plus, nombreuses que les hommes en matière de compétence on peut avoir on est d'accord on est d'accord que mu ëpp góor ñi ëpp on est d'accord pour jigéen ñi ëpp une fois de plus je parle d'équilibre je parle une fois de plus d'équilibre maintenant ñu ngi wax ay waxu séddoo je pense que d'emblée man sama jël benn kàddu li ma njëkk wax dama leen ne je me souviens vraiment de la de de la déclaration de Ousmane Sonko à la veille des élections mooy que ñëwuñu pour pàccoo donc nous comprenons aujourd'hui lan mooy ay orientation lan mooy gis-gisam par rapport ak fi ñu jëm. Mhm. on est d'accord. d'accord nekk ñu fi pour xool si ay régions ay départements et cetera. Mhm. mais par contre li nga xamante ne aussi war nañ ci bàyyi xel mooy autant dañuy seet ay compétences autant aussi il faut équilibrer et geste dañ ci insisté bu baax a baax a baax a baax donc du affaire u tarixa du affaire ay affaire religion ou quoi que ce soit. ndax lépp loo xamante ne aujourd'hui gis nañ ko fa nga jël compétence par compétence ministère par ministère boo jëlee dugg CV si ñi nga xam ñoom lañ ko dénk da ngay xam ne ñi ñu ko jox du ñu ay cuune c'est des gens qui sont expérimentés qui ont à prouver ailleurs seen compétence mais dama ne dama ne compétence égale moo waxaat ko compétence égale je préfère prendre l'homme politique loolu laa wax et là c'est ma vision personnelle maintenant pour pour pour gën a avancer si li nga xamante ne moom la doyen euh, Mamadou si Albert doon wax mooy njàng mënul tax nga doxal. bien sûr. donc dafa am lu mu laaj. un esprit de management. mais benn esprit de compréhension très pointu ci li nga xamante ne mooy politique publique bi nga xamante ne moom la moom la président euh, euh, Bassirou Diomaye Faye bëgg a bëgg a bëgg doxal. Mmh. et loolu il faut que. d'abord nga xam fan la nit ñi jëm mais nga xam aussi nan lañ koy doxalee loolu nag sens de management la laaj ndax léegi wax nañ ko fii ki nga xamante ne moom la président Abdoulaye Wade njëkk a andi mu nekkoon un cadre de la banque mondiale bi mu ñëwee toogul yàggul donc dafa am loo xamante ne daf ko laaj moo tax ma dellu si wax ne euh, une fois de plus compétence égal je préfère l'homme politique parce que en général ñoom ñooy ëpp expérience ñi ñu gis nii ñëpp wax kenn on ne doute pas de leurs compétences pas du tout. Mhm. parce que xool nañ leen mais jàpp naa ne. vraiment bu am nañu man gis naa ci coalition bi ñoo xamante ne vraiment loolu nekk ci ñooñu nekk nañ ci ñooñu te gëm naa ne ñooñu am nañ expérience étatique am na fu ñu jaar la ca des maintenant mooy que politique publique bi nga xamante ne moom moo leen war a booster bi nga xamante ne le président le le le candidat Ousmane Sonko. chaque choix lorsqu'on parle de choisir on parle aussi d'élimination. non on en disconvient on on en pas. mais li indi tey ji waxtaan bi mooy que ñu joxe. suñu xalaat par rapport à la situation actuelle. donc foofu la ñuy waxee. évidemment dafa jël ay bés. jël temps tànn ñi nga xam ne ñoom la yaakaar na ñoom la mën a àndal liggéey. léegi docteur Cheikh Dieng wax na ko on ne se limite pas pour pour pour vraiment euh, apporter ta pierre à l'édifice. yemul ci nga nekk ci nguur gi. il y a des direction il y a des PCA entre autres. ñoo xam te ne kenn ku ci nekk. fañ lay teg suba mën nga fa liggéey li nga yaakaar ne mooy li gën. en tout cas moi personnellement am naa yaakaar si nguur gi c'est pas parce que aw ma benn yaakaar ci gouvernement bi ñu teg je veux être très clair am nañ ci yaakaar ndax ñu ngi doog a toog dinañ leen jox temps bu doy parce que man jàpp naa si ñu gëm ne. duñu noonoo non duñu taxaw tey. bëgg a dox tey lépp sotti tey. donc il faut les donner vraiment le temps de travailler et de produire maintenant des résultats. am nañ ci yaakaar ndax loolu. moo tax ñu teg leen fii. Mhm. askan wi ñooy fal. Mhm. askan wi ñoo ci génn. voté massivement mhm. pour cette coalition pour cette coalition nous en tant que citoyens nous avons le devoir et l'obligation de suivre et de les aider maintenant à atteindre l'objectif parce que atteindre cet objectif c'est vraiment pour le bien-être de ce pays et ñun ñëpp si biir Sénégal la ñu nekk d'accord doyen euh, dernier tour de table bi dama bëggoon naa ñu wax ci euh, euh, politique yi nga xamante ni gouvernement Bassirou Diomaye fay bëgg nañ ko mëne euh, est-ce que yaakaaroon ni politique de rupture boobu il faut forcément des réformes profondes et pour ces réformes mu naka lañ ko war a mënee ñoom sans pour autant ñu indi constitution bu bees bon grosse euh, grosse question c'est-à-dire que fu ñu toll nii fu ñu toll nii euh, def naa euh, en tout cas Pastef ak les les alliés il y a peut-être que sa c'est un débat. déjà la configuration de l'Assemblée nationale munu leen permettre ñu mën li ñu bëgg a mën ci li ñu ko bëggee déjà loolu c'est c'est waaw non ça c'est des problèmes mais mais il y a une démarche c'est-à-dire boo jëlee nguur il faut nga am une démarche. mm la démarche et est elle est double c'est-à-dire fu ñu toll nii waa Pastef il faut déconstruire c'est la démarche du nouveau gouvernement su dee si tu veux la rupture c'est qu'il faut déconstruire oui. il faut nga xam système bi mhm. quels sont les composants du système mhm. loolu pour man vraiment il faut que Pastef et les alliés comprennent que y a ñoom loolu la ñu jaay nit de non il y a un travail de déconstruction par exemple le système rupture loolu la ñu jaay askan wi ba ñu fal leen waaw ça veut dire par exemple le système c'est le système présidentialiste système présidentialiste dafa bari composante il y a le président le maître absolu le, le roi comment déconstruire ce système-là c'est ce que Diomaye a posé comme premier acte c'est dire que je ne suis plus secrétaire général c'est un acte mais le deuxième acte le président il faut que mu am dans la réforme à venir qu'on précise la fonction du président de la République. D'accord. xam xam nga quand on dit qu'il est la clé des de la clé de des institutions mhm. c'est ça qui est dans notre constitution. Mhm. Mais donc la réforme à venir au niveau du ministère de la Justice, il faudrait bien que ce président tout-puissant qui est le maître absolu, bah, qu'on lui donne une fonction précise. qui ne soit pas la clé de voûte de toutes les institutions. gardien de la constitution. Ah, président bon. conseil supérieur de la magistrature. xam nga loolu gardien des lettres et des arts et cetera et cetera. xam nga il faut déconstruire la fonction. le pouvoir exécutif protecteur maanaam gardien protecteur des arts et des lettres. le premier ministre. il faut déconstruire la fonction du du premier ministre. le pouvoir législatif c'est la même chose donc le système il il a plusieurs variantes. maintenant bu gën a compliqué c'est la variante gouvernance okay. il y a une gouvernance politique une gouvernance économique c'est pour ça que pour man euh, le débat de fond euh, il faut l'aborder dans la coalition de de Diomaye la coalition ça c'est elle qui va porter le projet du Pastef si la coalition sûr. est bien pensée toute la stratégie de gouvernance de Diomaye déjà dafa war a leer ci biir coalition bi ndax ku bëgg a continuer cheminer ak ñoom nga continuer ku bëggut a continuer nga teel a xam ne ñii kat fi ñu bëgg a dem man xaw ma ko. no non plus que ça la coalition permet d'éclairer le président de la République c'est ça une coalition politique. cest que le président a son projet le premier ministre a son projet mais. la coalition c'est la politique ça te permet d'être un, espace de réflexion et d'action. Mmh, d'accord d'accord. c'est ouais. pas c'est pas du ventre. c'est pas pour des postes. oui Wade pourquoi parce que la coalition Sopi n'a pas marché on a dit que Macky a fait mieux avec Benno comment Macky a fini c'est pas catastrophique c'est parce que l'idée de coalition elle est mal réfléchie. Donc Diomaye a intérêt à mieux comprendre qu'est-ce qui va se passer au niveau de sa coalition. Quelle place la coalition va occuper dans la stratégie, dans la gouvernance, dans la gestion du pays. Tu as des conseils. Pour, man vraiment le débat de fond pour euh, ñu nekk tey jii ci nguur ji c'est au niveau de la coalition qu'il faut essayer d'engager la réflexion. Maintenant euh, la gouvernance pratique, c'est ce qu'on attend aujourd'hui de Ousmane Sonko. boppam mooy li nga posé c'est les politiques publiques gis nga politique publique c'est pas quelque chose que tu inventes les les politiques publiques il faut que le, le premier ministre la su amoon tey jii par exemple une euh, idée de sa politique générale tant qu'on n'a pas la politique générale du gouvernement on n'a pas de politique publique. mooy feuille de route bi. mooy mooy la feuille de route. il de la DPG. c'est c'est ça déclaration de politique générale bi war a ñëw mooy donc seen feuille de route ci la ñuy wax askan wi fii la ñu bëgg a jëm léegi Ousmane Sonko Ousmane Sonko c'est ça qui doit être sa bataille bien sûr après l'installation du gouvernement mais léegi nag politique publique yooyu mais la coalition là c'est la coalition qui va l'aider mais wax na ko sànq nee na seen ndaje mi li ñu ko doon wax surtout mooy li ko askan wi di xaar ci moom en tout cas il a intérêt man li ma la bëgg laaj bala ngaa kii bala ñu <laughs> pour ñu pour ñu gagner du temps mooy rupture bi ngeen bëgg nan ngeen ci fas yéenee jublu parce que y aura des réfractaires xam nañ ni toute révolution hmm, day indi coow nan ngeen fas yéenee ñëw ak seen rupture boobu. alors je pense que un premier acte un premier acte de rupture Diomaye ak Ousmane Sonko posé nañ ko ci gouvernement bi déjà wax na ko léegi am na lu ñu xamoon. mooy quota région quota quota tarixa ministre maire quota jigéen quota li quota le ak ay ministre maire am base électorale et cetera donc la première chose bi nga xam ni tey euh, le le nouveau gouvernement wane na ko mooy cette ces ces ces histoires de quota la jeex na alors c'était pas mauvais mhm. parce que il faut comprendre heure bi ko Senghor di def boo ko Abdou Diouf di def Abdoulaye di ci continuer dañoo nekkoon dans un dafa nekk dañoo nekkoon dans une dynamique de construction d'une nation xam nga état dafa am nation am. construction d'une nation mais surtout de pouvoir tout faire pour que nguur gi nga am assise partout mun koo perpétuer. bu xam bu ñu naan. Euh, boo demee Kédougou région bi gis su boppam sa bi moo lay accueillir mobiliser wan la ni am naa mbooloo et cetera sa xel dal et cetera. c'est un aspect mais l'autre aspect c'est plus. dans le sens de construction d'une nation cest à d'unification de segment d'une nation yoo xam ni est-ce que nekk ministre rek moo war a tax région sàngam gis boppam ci gouvernement bi waaw waaw may ma may ma ci laay ñu moom laa la expliquer xam nga xam nga tey dañ naan mën nañoo gis ni euh, une région en particulier mën naa bañ a gis ci boppam parce que kenn ku nekk ci région mu nekku ko à dire que équilibre yi bi ñu ko doon def président yi bi ñu ko doon def du woon pour bu ñu demee Thiès fekk fa am bu ñu demee Kaolack et non non c'est pour que chaque région wala chaque communauté gis boppam ci gouvernement bi dañu gis boppam am ci un représentant mooy catholique yi nekk ci biir murid yi nekk ci biir waa waa région Saint-Louis nekk ci loolu dafa nekk ay dynamique de construction d'une nation mooy parce que on a des construire une nation nag c'est pas facile car loolu bokk na ci li Senghor gën a réussir par rapport à beaucoup d'autres pays africains où les identari les identarismes ethniques les identarismes linguistiques dañoo fort la la personne se sent plus son ni que son pays loolu lu ko Senghor bëggoon a régler c'est fexe ba ñëpp mën a gis seen bopp ci biir réew mi pour que donc ñu am quelque chose de d'assez consensuel. mais la preuve aussi mooy dañ doon fal nit parce que Tamba la juddoo ku mel ni man Tamba la juddoo kan moom ma fa xam kan laa fa xam. tout ñu ngi woy quelqu'un de Tamba nga jóg rek nga sa loxo. fekk fekk xamuñu la xamoo leen plus de ce ñu dem ba ci moment de faire le bilan. Mhm. ñu gis ni ñun suñu ministre bi ñu tàmbali dëkk ñun xamuñu ko lan la ñu defal. voilà parce que affaire bi nag du woon ay. souci bi moo doon surtout au moins waa Tamba gis seen bopp c'est-à-dire que am quelqu'un qui répond de Tamba c'est c'est c'est pas forcément. wuyoo wuyoo dara taxul nga nuru ko comme si Sidiki Kaba bi ñu koy fal politiquement euh, c'était zéro nekkul woon ci politique. mais dañ koo fal pour que waa Tamba gis seen bopp ci biir kii bi ci biir gouvernement bi tu vois kon l'idée c'est pas forcément politicien mais c'est aussi. esprit de construction de nation comme comme ni ma la waxee léegi alors sa beneen question bi nga posé mu et loolu dafa indi une rupture nag bu ci dafa am rupture boo xam ni euh, Ousmane Sonko ak Diomaye def def nañ ko ci mooy ñu ni peut-être que le niveau de conscience nationale mhm. tey le niveau de construction de la nation dépassé nañ tey ñu naan kii bi région la dëkk kii bii département la dëkk kii kii catholique la kii kii wala kii joolaa la man man mën naa jàpp ni tey ku nekk Thiès l'essentiel est qu'il soit pertinent que mu mënal métier bi bi koy dénk man dama ci gis sama bopp bien sûr voilà euh, ma du ma xool forcément ni diw kii dafa dëkk Pikine wala dafa nekk Kajoor ak ma ci gis mais les bi nga posé question wax nii donc dañ koy envisager man de mon point de vue ñaari aspect am na rupture yoo xam ne tey sa demande pas de l'argent ça demande pas du temps et dañoo dañoo jàmp peuple bi da koy xaar la question tey booy xool euh, des services publics soxlul xaalis boo demee hôpital ak accueillir la bu baax boo demee mairie ak accueillir la bu baax boo demee dans un service de l'État ñu ak accueillir la ak accueillir la jox la cër en tant que citoyen bi nga xam ni yow ki ngay waxal yaa koy fay sa xaalis. Mm-hmm. parce que c'est toi. Mm-hmm. Euh, qui dépense c'est toi qui euh, qui finance la fonction publique. bien sûr à travers donc loolu dafa nekk ay mesures immédiates yoo xam ni te Ousmane ko war na koo mën a jël laajul xaalis laajul temps lu mu laaj mooy. une volonté politique mais forte mesure, de mettre mesure, la, la de mettre l'administration au service du citoyen mesure yooyu nag moo gën a jafe ndax bëgg ko taxul ñëpp suivre ñëpp ñëpp ñëpp déggal dafa mel ni xeex ger dafa mel ni biñ ne dañuy wàññi luyaas du loo xam ne da ngay toog ni nii la mesure contre la corruption c'est des mesures qui demande pas de l'argent oui ça demande pas du temps ça demande une volonté politique immédiate et forte et des réformes. maintenant on a un excellent réforme on a un excellent arsenal juridique gis nga les lois les lois yi xeex guerre Sénégal bokk nañ si les lois. mais bu may wax réforme mooy maanaam digitaliser le au maximum l'administration le service public. parce que digitaliser mën na permettre yu bëri. c'est aussi des éléments qui vont lutter qui vont aider à lutter. contre la contre la kii euh, maintenant il y a yi nga wax comme hyperprésidentialisme bi doyen Albert doon wax léegi yoo xam ni dañoo laaj ay réformes. constitutionnelles ay réformes constitutionnelles. oui oui aujourd'hui tey boo nee hyperprésidentialisme da ngay def référence. donc au pouvoir confié au président de la république loolu loi constitution moo moo ko ko jox soo ko bëggee wàññi da nga la constitution bien sûr bien sûr il y des institutions yoo xam ne tey euh, sunu coalition dañoo engagé wu pour dindi leen. d'accord le conseil économique social et environnemental. moo haut conseil de. collectivité territoriale yooyu conseil dialogue de dialogue des territoires yooyu dafa laaj nga laal constitution bi. mais pour man koo dindi. mais Abdoulaye Wade euh, juste pour rappel parce que dama commencé am ay nuances sama sama bu may xalaat bi euh, Macky Sall di dindi. Euh, euh, nu mu koy waxati. conseil hmm. économique et social. non non non Sénat. le le Sénat bi muy ah. dindi Sénat jógee voyage di wax ci inondation yi que on a besoin de cet argent et bi muy dindi Sénat fan la jaaroon. Euh, mais c'était pas ça à l'Assemblée nationale. parce qu'il fallait. assemblée la majorité. d'accord. qualifiée pour le faire. d'accord Mamoud. oui. réforme yi. gëm nga ni. dinañ ko mën wala jàpp nga ni c'est des chimères. waaw mais on attendra de les voir à gëm laa wax yow gëm nga ni mën na nekk. parce que fii Sénégal loo wax ñu ni mënta nekk. non mais xam nga. guvernement bi dafa ñëw lundi lundi soir commencé wax ñu ni mënta nekk. mais lan lu mënta nekk ak lu mën a nekkee xanaa dañuy xaar ba ñu jëf. non xam nga xam nga dama koy. réforme yi yow gëm nga ko wala gëmoo. mais dama bàyyi ma ma teg ko ci ay firne yu wóor rek après peut la réponse tu l'auras mais avant tout je voudrais dire au au docteur Cheikh il faut quand même Senghor, qu'on respecte Abdou Diouf. Senghor, c'est lui qui a bâti l'État du Sénégal. Quel État du Sénégal Non, doucement rek Robert xam nga il faut pas vous couper. Il faut pas que su ma bëggee su ma bëggee dog gars yi ñu dog. Il faut me laisser poursuivre. Vous avez deux minutes, d'accord, vous avez deux minutes. Non, j'ai j'ai plus que deux minutes. Non, temps bi damay contrôler le temps. D'accord, moi aussi je contrôle le temps. Je veux dire que le le euh, Abdou euh, Senghor mais il a bâti cet cet, cet État du Sénégal sur des équilibres. Il faut pas qu'on oublie ça, il faut que ñu jàngal l'histoire du Sénégal. le président Senghor comme le président Abdou Diouf a été son successeur nous avons le parti le parti le socialisme le parti socialiste laay wax nous avons bâti ce ce pays là. non du parti mais moo tax moo pas d'accord tu me dis pas d'accord nga wax nga teg foofu fu leer que dañuy damay damay junj rek. li may bëgg a wax mooy que ni. moom dafa wax nii c'est comme si la la nation sénégalaise est est est elle, elle est complète elle elle est tout y a plus rien à c'est pas une œuvre euh, euh, c'est une œuvre à parfaire parce que y des équilibres qu'il faut respecter c'est important dans ce pays-là muy Sénégal dafa am équilibre xam ne dañu ko respecter soo ko respecté wul mais tu seras obligé de revenir sur des fondamentaux xam nga sénégalais ñu ngi wax commencé di junj di nii. le président Bassirou Diomaye Faye ba ñu ko falee ba léegi déggoo mu ne mu mu mu mu dem seeti sëriñ si déggoo mu dem euh, nuyu. nangam yan Sénégalais ñoo non ah, non toi tu es journaliste tu tu tu te tu te renseignes et c'est ça qui est vrai parce que ce qu'on a remarqué effectivement depuis ba ñu ko falee ba léegi. ma waa defal naa ko rek. yaa ngi génn de. non génn ma. yaa ngi génn non génn ma non non tu cherches. non non non ce sont des équilibres xam nga les équilibres yaa ngi génn la petite bête un peu partout. mais bien sûr sama rôle alors que dañu nekkoon ci benn logique. non dañu nekkoon ci benn logique non oui mais sama rôle c'est non li ma wax rek le professeur a dit tout à l'heure parler de déconstruction mais moi je suis pas d'accord xam nga la rupture man fu may xaaree mooy am na lu mu wax am solo c'est moins les paroles mais c'est plus les actes parce que rupture rupture rupture wax neex na. mais liggéey ko pour sénégalais xam ne rupture am na loolu loolu mooy mbir mi vous avez parlé de l'Assemblée nationale. déconstruction mooy c'est vrai que boobu moom du la arrange. non parce non que vous non, avez construit. non mais parce que mais si tu prends le le projet bu ma gënoon tudd si prends le projet de de de de de, de Pastef fan nga dégg ñu ne eh, ñu wax la rupture il y a combien de fois ils ont cité le mot renforcé il y a fois ils ont cité le mot augmenté lan la ñuy renforcer lan la ñuy augmenté fi nekk. bi bi bi ñu perte nguur bi ñun les socialistes mais Abdou Abdoulaye dafa ñëw mais dafa indi sa touche continuer liggéey bi ak moom nu mu ko gisee ak programme bi mu fal. parce que dafa bëggoon ñëw indi lu bees soppi la woote woon. ngeen ñëw rax ko. non non xameetuñu qui est socialiste qui est ci nguuru. Ablaye Wade mais moi j'ai nga wax. ah mais non ñun parti socialiste. mais ñaata ñoo jógee ci yéen. mais ñan dem fekk Ablaye Wade. ñan. mais s'il y a des Bassène, personnes ba seen président groupe parlementaire Abdourahmane il est allé rejoindre mais ça c'est individuellement moi je parle du parti social moi je parle pas de de ou telle personne parce que réew du doxee noonu di nga di nga di nga luy wax nii aujourd'hui par rapport à l'Assemblée nationale li fa ne mais ils n'ont pas la majorité à l'Assemblée nationale fi ñuy jaar parce que même pour même pour la HCCT pour jënd ko fi ñuy jaar c'est une loi constitutionnelle non dafa nànk dama expliqué. xam nga dama la dafa nànk rek d'accord non damay expliqué le wallu ñëw jàppale leen. est-ce que xam nga il suffit juste de deux voix. oui pour que majorité bi jóge seen loxo mais mais on verra parce que loolu c'est yaa ni fu ñu jaar moo tax loolu d'accord mais mais on nga je pose je je je fais une réflexion. parce que il faut pas que ñu xam ne waaw d'accord je fais une réflexion xam nga sànq tu la constitution on va pas se réveiller pour changer la constitution. mais par voie référendaire. waaw ouais, mais mais je veux dire c'est quoi mais nous nous avons une bonne constitution. oui mais bu fekkee ñii dañu am lu ñu bëgg a indi te lu ñu bëgg a indi. mais lan la ñu bëgg a indi dañu ko teg ci kaw table xam nga li fi nekk. li fi nekk Mamadou mooy non xam nga. ni lii du war fay jóge. non waxuma loolu de. te xam nañu ne lii yàgg na fi indiwul dara lu baax ci réew mi tamit. Birama waxuma loolu dama ne. du kee waxuma lii non dama ne lii waxuma lii war a fa jóge ñoom la ñu fal ñoom on les regarde à l'œuvre nous avons une bonne constitution. waaw ah oui. est-ce qu'on a est-ce qu'il prévoit pas mieux. mais mais on a une bonne constitution très bonne constitution même je dirais. maintenant ñoom su nekkee dañu bëgg changer constitution bi ba yaa wax sa xalaat xam nga waxuñu ñoom dañuy changer constitution. waaw waxuñu ko de. waaw waaw kon jeex na donc il faut pas qu'on discute sur fan la mën a jaar. a jaar ba appliquer li ñu bëgg ñoom n'a pas waaw mais on n'a pas la constitution ñu du ñu yeewu suba teel ko c'est pas comme en 2000 où il y a eu euh, un, un changement de régime. 2001 waaw euh, de waaw loolu dafa waaw 2016 waaw dafa nànk rek soppi nañ ci lu bëri. waaw mais soppi ci bëri du changer constitution lu ñu mujj a changer mooy mooy de figer les les les mandats donc c'est pas c'est pas euh, on change pas la constitution parce que la constitution c'est pas juste. Euh, la réforme constitutionnelle c'était sept points apparemment. waaw ah, mais Birama moi je ne pas qu'on focalise sur la constitution dama doon jàll rek. xam nga constitution suñu dalee def débat moi je suis pas un constitutionnaliste. d'accord mais mais je sais simplement que on peut pas changer la constitution parce que tout simplement. du jour au lendemain parce que tout simplement on pourquoi changer la constitution pour quel objet pour quel effet. ñu ngi suñu kanam. waaw loolu waaw mais loolu mais mais dama wax nii lu ma wax mooy que ni euh, moi fu ñuy wax ay rupture moi en en bon sénégalais et en opposant je préfère les regarder à l'œuvre. d'accord parce que c'est en ce moment-là qu'on sera apte à juger.

xam nga ñoom dañ am nañu am nañu def nañu réunion waaw waaw mais danaa ko jox léegi amul trente secondes rek su ma daggee mu yàgg def nañu réunion coalition ñu ne dañuy porter la dañuy porter les préoccupations de la population vous pensez que ceux qui ont fait le tour du Sénégal qui ont entendu qui ont mis en place un projet ils ne connaissent pas la préoccupation des Sénégalais fu leen Sénégalais yi di xaar xale yi la jeunesse mooy l'emploi parce que yoo xam ne le le coût de la vie les préoccupations sont connues man li ma jàpp mooy dañ dem comme coalition bi li doyen wax coalition comme coalition rek la de. non wax ma loolu la wax on n'a pas créé un nouveau sénégalais. nous sommes tous on sait très bien que doon def noonu du woon la préoccupation des sénégalais loolu moom loolu laa man laa jàpp. Babacar loolu laa jàpp. waaw doon am nga ci plein droit nag. sincèrement. waaw yow moom sa sa sa posture opposant moom. non teel nga koo jël. ah non man man man man euh, c'est pas une question de posture d'opposant c'est une question de simplement lii buy gëmloo nit ñi. amul ah, non du question amul mais moi j'attends de voir. d'accord Babacar j'attends de voir et moi je juge sur pièce. Babacar comme temps bi jeex na daanaka en deux minutes ah. defal ma sa analyse ci rupture bi nit ñi di woote gëm nga ko wala gëmoo ko. bon man d'abord dama leen koy nangu waxuma gëm ak gëmuma dama leen koy nangul parce que loolu la ñu jaay sénégalais yi sénégalais yi voté ko nous en tant que citoyens républicains dañ leen koy nangul ndax ci biir Sénégal la bokk doon ut ñoom ñuy ut askan wi xool tànn leen ñun en tant que républicains nous soron la di xool nag su baaxee on apprécie su baaxulee on critique on propose des solutions ñun dañoo def vingt-quatre ans d'opposition jëlee ko ci Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall aujourd'hui ñun suñu posture ñun. comment vous avez fait 24 ans d'opposition. 2000. la ñu nekkoon parti socialiste. non non la attends 2000 la ñu nekkoon parti socialiste. Abdoulaye Wade jël nguur gi. en 2012 nous avons eu des problèmes avec nos camarades du parti socialiste. 2016 2000 2016. ci référendum ba la oui ou ba. avant avant y' am am na leneen lu si am avant sax référendum waaye en tout cas parce que ñun amoon nañu gis-gis. Ah, loolu mooy yëg ma amoon nañu gis-gis bu bokkul ak ñoom donc li si am am na génne nañu nous avons assumé notre position de position aujourd'hui man jàpp naa ne man ak ñi ma àndal ak ñu mel ni man jàpp naa ne ñun waraguñu am posture opposition. tant que gisuguñu gars yi doxal ndax li ñuy doxal dafay dépendre ndax ñun dañoo war a opposer wala dañoo war a am benn position de contribution. Hmm. ndax ñun ñëpp dañoo bokk nekk ci opposition bi ànd nag ci yeewi askan wi lu yàgg mën nañu am ay points de divergence. Hmm. mais ces points de divergence ne peut pas nous envoyer maintenant vers une opposition inutile. man bu ma ko def. gars yi ñu sonn ci opposition bi loolu la ñu wax. Euh, Mamadou doo tamit wax. non Mamadou c'est c'est c'est un provocateur on se connaît xam nga xam nga non non ñun ñun non non au très contraire à parce que yow aujourd'hui da ngaa commencé critiquer fu dara nekk nekkagul et pour moi sa vraiment c'est avoir un esprit nihiliste loo xamante ne tàmbaleegul nga bëgg a jàll ay critique di dóor man j'aurais bien aimé attends moi j'aurais bien ñu bàyyi nit ñi doxal je ne vous parle même pas de trois mois je ne vous parle pas de six mois mais d'un an au moins une année bouclée ñu doog a xam ndax ñii fi ñu waxante woon ak ñun ñu ngi ci yoon wala nekkuñu ci yoon mais ñoo xamante ne defaguñu une semaine deux semaines critiques yi commencé daw. vraiment je pense que loolu loolu loolu du posture bu baax ndax jàpp naa ne ñun nous devons apprendre à s'oublier et essayer de promouvoir l'intérêt de ce pays tey nee naa la une fois de plus askan wi à 54 virgule 28 comme c'est vous l'avez si bien dit ñoom ñoo ne. ñoom seen projet moo leen gënal. waaw si aujourd'hui nous voulons rester républicains nous devons assumer la position de ce peuple. oui ñoom ñoo def choix boobu noonu. ñoom ñoo jël suñu programme. xool programme Amadou Ba. mais Babacar xool programme ba ñu ne programme ba de moo gën. est-ce que bokk na ak idée taxaw wala boo leen demee ba ci biir ba. non non non je une fois de plus. ah dam la ne. noom mhm. la ne man ak ñi mel ni man. ah d'accord aujourd'hui la plateforme taxawu Sénégal ñu évaluer. évaluer gu leen donc aujourd'hui nous avons envoyé des lettres circulaires à tous les responsables des départements mm. pour que niveau des communes ba ci département yi ñu mën a def seen évaluation remonter ko d'accord mais nous nous sommes mais ñun kenn tënkuñu kenn moomuñu nous avons le droit maintenant de s'exprimer wax li nga xam moom la ñu xalaat maintenant la taxaw Sénégal après di décider loolu leneen la d'accord je pense que docteur Cheikh dernier mooy doon sa dernier mot ah. mais bon comme dernier mot damay damay koy koy rassurer rek. Mhm. que li ma wax ci Senghor tout à l'heure ci Abdou Diouf c'est plus positif que négatif parce que j'ai dit ils étaient dans un contexte. Mhm. où on venait d'arriver aux indépendances. Mhm. ñu war a am une fonction de construction d'une d'une nation peut-être que monsieur Wane est plus est, est très très opposant dans sa tête que lu nekk lu nekk il voit le côté négatif mais au contraire man je justifie que en 1960 da nga doon da nga doon doxalee en réalité li docteur nu wax ne contexte yi jamono jooju la bëgg wax ne c'est ça la nation le concept de nation il faut que ñu ñu xalaat ko c'est pas c'est pas une une œuvre boo xam ne dañu jàpp ne jeex na surtout que aujourd'hui avec tout ce qui se passe au Sénégal nous savons il y a des velléités alors alors velléité de quoi Maodo je donne pas dans ces considérations. ah mais si yow yaa fa bëri quoi d'indépendantiste wala de séparatiste wala. je sais pas xam nga. ce que je dis wala de djihadisme. non la nation la nation Birama bul egg fu mu eggul. non dama ko laaj dama ko posé. velléité de quoi. bàyyi di posé fay chaque fois xam nga man man damay bàyyi wax. docteur docteur continuez. donc donc donc je pense je pense qu'il faut bien. il faut bien comprendre que Sénégal nam na fa mu tolloon 1960. fa mu tolloon 1980. jeex na docteur waaw. tool tool toolu fa 2024. et que nag il faut que les esprits di dox ànd ak jamono. ba loolu wëyee donc euh, ci lan lañ nekk ci tey opposition parce que tous les hommes politiques dañoo war comprendre le message. bi sénégalais yi envoyé à la classe politique. les façon na ñun opposition nii liste. dóori xeer et cetera xolli xool fu dara nekkul nga opposé ko ah, je pense que loolu léegi dafa xewi il faut que les gens sachent que dañuy xaar nit ñi ñu nekk dans une dynamique de proposition su baaxee nga ni baax na waaye ma moo nañ ci yokk lii su bonee nga ni bon na et loolu si ñun ci biir coalition Diomaye lay tàmbale ku ko xam Cheikh Dieng xam ne Cheikh Ndiaye ci boppam nekkul koo xam ne dafay nekk di raayal wala di wala di diw bër kenn. d'accord ginnaaw ba ma nekkee conseil technique président Ablaye Wade laa doon toog di critiquer des actions de Ablaye Wade dans son bureau. Mhm. estomac nag keneen koo xam ne bokkuñu parti peut-être dañoo bokk coalition sax. alors pour aller aux réformes foofu laa bëgg a tëjee je pense que tey au euh, tey tey fi tey boo jëlee les engagements de la coalition. waaw ah jeex na euh, donc ci respecter les conclusions de la commission nationale de réforme des institutions mmh. parce que c'est engagement CNRI CNRI mmh. donc euh, li nekk ci programme de de de gouvernance donc du projet PASTEF forcément day impliquer des retouches dans la constitution mmh. man ma proposition par rapport à ça est que le président Diomaye mette en place li ñuy wax benn haute autorité mhm. boo xam ni day saytu toutes les pro propositions de rupture. Mm que ce soit dans la réforme des institutions. Mm -hmm. que ce soit dans la marche de l'État. d'accord boo ko defee li jar changer constitution ñu tënk ko dans une nouvelle constitution. d'accord li jar defar de nouvelles lois autorité boobu tënk ko dans des nouvelles lois. Mhm. li jar ay décret ñu proposer président ay projet bi daal benn genre gardien du temple lay doon wala gardien du projet dafay nekk koo xam ne daal mooy saytu lépp pour que une fois pour toutes ñu étudier toutes ces propositions de réforme la ñu def ko jàll ci leneen parce que nag les Sénégalais attendent ces réformes. D'accord. Le Diomaye est attendu mmh. sur mhm. ces réformes-là, sur la justice, mmh. les réformes sur l'administration, mmh. les réformes sur euh, la suppression des institutions inutiles budgétivores, la réforme sur la, euh, la fin de l'hyperprésidentialisme mhm. mooy pouvoir yi jégg dayoo yi nga xam ni Macky Sall da ko yoroon tey ku mu neex mu yóbbul kaso ku mu neex te nga nga ko faram sa kër loolu Diomaye wërta man a am yooyu pouvoir et tous et tous ces toutes ces réformes là dañu ko war a saytu une fois pour toutes xool li ci baax li ci baaxut parce que yu ci yu ci bari aussi dafay nécessaire nga def ay concertation sectorielle mhm. entre le gouvernement et les et les artisans de ce secteur la pour que ngeen mën a tënk ay réformes yoo xam ni day nekk réforme consolidante mhm. yuy avancer Sénégal yuy avancer les secteurs yoo xam ne Sénégalais dinañ ci gis seen bopp par rapport aux promesses donc de la coalition Diomaye Président. mais Camara je voulais ah, rek. mais temps bi jeex na. Ah, ah, précision rek tàggatoo xanaa. mais docteur ñun dañu waxoon nañu boo leen ñëwee da ngeen di. da ngeen di da ngeen di supprimer la caisse noire mais apparemment dama dégg ñu ne dañ koy revoir. supprimer man mosuma dégg supprimer dama déggoon ñu ni. loolu c'est maintenu quand même. c'est dire non non il faut euh, dina ci am benn droit. loolu il faut il faut. bien dire au Sénégal. Mhm. en tout cas coalition Diomaye. Mhm. bi nga xam man gis naa programme bi. Mhm. mosoo day supprimer les les questions. programme bi ah. ah donc kon li nga wax. li nekk ci programme bi. Ah. li nga wax. dañu dans la manière de gérer les fonds d' abord dañ koy wàññi. benn benn. deuxièmement donc dañ koy rendre transparent. Mhm. mooy que les corps de contrôle ou l' assemblée nationale am un droit de regard mhm. pour que président nekku ni lu ko neex la ciy def nu mu ko neex la koy defee wante dañ koy. gérer de manière transparente lu nekk ñu mën ko dugal doyen Mamadou Sy Albert moo ko ah, moom sànq ba léegi mu ngi leen di ngeen di wax Mamadou suba di fi ñëwaat yow li nga xam nga li nga ñëw benn ñu dugg ci point yëpp Mamadou joxal damay tàggatoo xanaa naa tàggatoo nag gis nga waa régie ñoo moom antenne buñ ko coupé nga xam ne coupé dinaa tàggatoo euh, dinaa tàggatoo sur un cas boo xam ne am na dafa naa ko rek bàyyi ñu damaat beneen dama wax le cas le cas du moom moom kàddu gu non le cas de la nomination du du premier président de la cour c'est légal et c'est légitime loolu débat boobu dina am.

c'est une amélioration. Tout à Merci le sage. Il faut garder le sage doyen heureusement ba kàddu yi nga mujjee le spectateur yi mujjee jàpp ci débat wu tay bi di la gërëm di gërëm suñu invité di gërëm Babacar Mamadou sama grand docteur Cheikh Dieng merci beaucoup mbokk yi gërëm leen sant leen. docteur